Euh, donc kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci fànn yu nekk daal dina bëri waaye nag dinañ ko daal di de décortiquer waaye itam dinañ daal di ubbi antenne bi rek ngir yéen askan wi ngeen daal di woote rek wax seen xalaat ci discours président boobu boobule waaye nag édition spéciale bi euh, duma ci wet benn yoon dama ci ànd ak journaliste boobu di wuyoo ci turu Sagna Sagna nuyu naa la. fay naa la Sali maa ngi lay fay bu baax a baax. Mhm. voilà Sagna yéen ñoo gisandoo. Euh, discours président de la république d'abord ban jàngat nga am ci discours am boobu la. mbégte laa si am. Mhm. contentement. Euh, parce que dafa nekkoon euh, depuis ces derniers temps maa ngi ci doon demander di si exiger Euh, finalement, Alhamdulillah, le président ne fera pas une troisième candidature. Mmh. Euh, sa mission va s'achever en le 25 février 2024. Mmh. Euh, décision la boo xamante ni sànq maa ngi la doon wax ci euh, émission bi mmh. ma ne la man je suis optimiste d'après le président lu mu doon wax euh, barkaati démb di naan du ma leen topp parce que ñoom taxuñu maa jóg taxuñu ma may liggéey. loolu présomption de bonne foi boobu noonu bu ñu ko joxoon finalement il nous a donné raison nous sommes aujourd'hui contents parce que ça ça va maintenir la stabilité du pays mhm. loolu bu boobaa nag manifestation yi xamante parce que euh, c'est vrai que ces derniers temps y a eu des manifestations mais ba léegi am na ñoo xamante ni ñu nga nelaw mhm. dina dañuy xaar ba le président déclaré loo xamante ni moom mooy sa troisième candidature donc euh, finalement il a renoncé à euh, cette troisième candidature boo xamante ni les ennemis de la paix ngi si doon pousse. Mhm. waranti na ñoo xamante ne du ñoom ñooy euh, bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar. ba ñuy def ay pétition waaye finalement il est revenu à sa raison mm. donc nous pensons que ça c'est une très belle décision donc le président de la République est entré aujourd'hui dans l'histoire mais di ñaan yàlla nag yàlla ba mu def face maanaam yàlla ba mu dem ba ci biir mën a des yi ñëwaat mm-hmm. parce que on a le scénario de euh, de la Côte d'Ivoire Alassane euh, Dramane Ouattara mm-hmm. moom tamit def waxoon na nii euh, de poser candidature waaye daf dem ba ci biir rek ki ni moom la désigné kooku ba mu wàññeeku rek si saa si si la rupture wa ne na day présenter lu xamante sa troisième candidature kon tey décision euh, déclaration bu importante la tey hmm. par rapport pour le président mel ni am na ku nekk ci ligne bi ñu daal di koy jël asalaamaaleykum euh, voilà mu mel ni euh, dem na donc Sagna comme ni nga ko waxee tout à rek mu doon vraiment mhm. euh, ñu bëri ñu ngi doon ko voilà mu euh, euh, doon loo xam ne sénégalais yu bëri ci loolu lañ doon ko ko lañ lañ ko doon xaaree que mu bañ a déclarer candidature am ndaxte loolu mooy mooy mooy moo moo doon loo xam ne voilà dina jëmal réew mi kanam te jàmm ci la lépp xaj te bu nekkee Sénégal mbiru mu bañ a mu bañ a wax ka mu bañ a déposer candidature am je pense que ne bu nekkee loolu mooy tax Sénégal stabilité bi dellu si waat donc loolu da koy jar te képp koo xam ne rek sénégalais nga tey ñaan yàlla jàmm am fii si réew mi je pense que ne lépp loo xam ne rek euh, day indi jee foog naa ne di nga ci renoncer te moom euh, li mu def euh, jël na décision boo xam ne daf koo jël avec grandeur avec mën nañoo ne diplomatie mu doon loo xam ne vraiment. Euh, ñu bëri ñu ngi ko koy ndax te lii rek lañ doon ko xaaree Sénégal boo demee mën nañu ne boo demee ba say askan soxlaatuñ la wala bëggatuñ la euh, il faut que nga wan leen ne man maa leen gën a bëgg réew mi ma jox leen li ngeen xam ne moom ngeen bëgg te askan bi ñoom ñoo ko faloon donc tey jii nii bu ko askan wi soxlaatul euh, il est temps que mu daal di renoncer te def na loolu mu doon loo xam ne vraiment ñu ngi ko ko fi jaajëfal bu baax te moom tamit si loolu mi ngi sax ñi nga xam ne ki démb je pense euh, di wax ne ñoom pare nañu pour ànd ak moom ci ci présidentielle 2024 bi ak ñenn ñoo xam ne euh, bëggoon nañ tey moom mu doon candidat alors que moom jàpp na ne stabilité réew mi waaye itam jàmmi réew mi moo ko soxal donc tey jii nii du def loo xam ne day salfaañe réew mi fa saaña alors euh, le président de la république boo xoolee. Mhm. xam nga man daan naa wax ni amul échappatoire. amul foo xamante ni war na fa mën a génn ba déposer loo xamante moom mooy une troisième candidature mhm. parce que moom moo ko waxoon waxaat ko mu wax waxaat ko parce que man sànq bu ma doon wax ni di naan le président de la république fu mu parc de Mondia dafa doon wax ne ñii dañuy naan. ñu mhm. ne faut faire plus de deux mandats consécutifs di bàyyi beneen phrase boo xamante ne moo nekk si ginnaaw. man taxoon na ma ne mais man lu ma wax ni euh, lu may wax ni si président de la laa ko dafa ne mhm. woon maa ngi sama premier mandat de sept ans. loolu bu jeexee. askanu Sénégal bu ñu ma wooloo en deux mille dix neuf naa defaat benn mandat de cinq ans. Mhm. muy sept plus cinq muy douze ans. maintenant moom ginnaaw loolu moom pare na def na deuxième mandat pare na ci mu ne encore mu taxawaat mu ne man de dinañ ma seeti fépp sauf mbir troisième mandat. mu mhm. ñëwaat bindi ko ci livre loolu moo tax ma ne moom amul échappatoire boo xamante ni mun na ko taxaw mun na wax ni ba euh, ba nit ñi gëm ko ba mu légitime loo xamante moom moo di sa troisième candidature mm-hmm. c' est illégitime c' est immoral c' est pas ce n' est pas bon pour la nation te taxaw na mu ne dootul ka euh, déposé te sa troisième candidature dina ñëwaate def def son bilan bu 2012 fan la jëlee le Sénégal 2023 mm-hmm. wala 2024 fan la yamee ci Sénégal bu boobaa nag il va sortir par la grande porte. Mm -hmm. mais déjà tu sais euh, lan moo tax le président décision ba mu jënd mu nekk décision importante. Mhm. Euh, Sénégal tey jii ñëpp a doon xaar. 16 heures ba mu jotee. Mhm. tali bi ñëpp jël yoon bi pour ñibbi. pour ñibbi parce que tout le monde était aussi stressé. Mhm. ku nekk conseil dina le président bu nekk laa rek troisième candidature fan la ñu jëm dëkk bi fan la war a dem. ba pare si diggante bi ñu commencé def ay loo moom moo di euh, jalonnement. léegi boo xoolee boo gisee loolu yëpp yow bu boobaa da ngay troublé. Mhm. donc dans ce cas tout à fait logique moom mu ne doon dina ko candidat Sénégal ñëpp a ko doon euh, doon xaar c' est l' intérêt de tout le monde comme bac bu fekkente ni yow da am candidat si sa kër. Mhm. mais koñ boobu yëpp day nekk candidat koñ bi yëpp. koñ bi waaw bu fekkente yow da nga admis. non c'est la joie du quartier. mais boo échoué nag dañu naan kii lan la war a wax waa koñ bi. Mhm. looloo tax ñoo xamante ne dañuy échoué au bac mais da ngay gis ni ñu jooy jooy bu métti parce que ñu sa ne bopp. Mhm. waa koñ bii la ñuy xalaat. moom président de la république intérêt bu waa euh, Sénégal ñëpp a accordé. Mhm. son discours mais day def discours 31 euh, décembre day def discours 4 avril. mais il n'y a pas au il n'y a pas au s au temps d'attention que ni ñu accordé discours bi tey. Mhm. il vient de libérer le pays ñu kon ni ñu am si loo xamante ni moom moo dem mbégte bu baax a baax euh, ñu ñaan yàlla rek yàlla ba mu ba mu si defaat encore volte-face parce mhm. que euh, c'est la c'est la décision des politiques. Mhm. mais c'est tout à fait logique parce que les séquelles de 2011 sont là Sali. surtout 2011 ni ñàkk nañ seen bakkan pour nous au troisième candidature. <laughs> mais ñoom. ñun gënuñu leen ci président de la République il était à côté de ces jeunes là qui manifestaient mm -hmm. en mhm. maintenant si c'est ce même président de la République à l'époque je le disais dans les jours passés qu'avec son système de mergadou mhm. maintenant on va écarter euh, ce, terme si c'est ce même président de la République qui vient qui voulait briguer une troisième candidature ça sera paradoxal mhm. il a entendu le cri de cœur des Sénégalais et il, s'est renoncé euh, lu mu wax ci discours am discours bi nag mhm. euh, am na loo xamante ni parce que loolu la ñuy sociaux ni ñu commencé na di ci partager ñu mhm. cette décision du président de la République aura des conséquences des répercussions politiques ces conséquences mooy d'abord moi je vais analyser je ne vais pas analyser sur un seul angle parce que ñeneen ñi dañoo jàpp ni le mhm. président décidé na ne du def troisième candidature waaye Ousmane Sonko tamit lu doon candidat mais boo lire boo déglu bu baax son discours à l'intérieur dafa ne le respect des décisions juridiques mm. le respect des décisions juridiques mooy lan maanaam eh, justice képp ku mu daan bu boobaa décision boobu dañ koy daal di appliquer degré gré mm-hmm. moom lu ma comprendre si dans dans le discours alors jamono ji quand la justice daan mu nekk këram kenn kese lañ ko mën a identifier moom moo di ñaar xanaa Ousmane Sonko ak Ndeye Khady Ndiaye mhm. te Ndeye Khady Ndiaye fii bouc émissaire la bouc émissaire la si dossier bi mhm. kon cela veut dire que c'est du côté de Ousmane Sonko Ousmane Sonko daan nañ ko première décision le 8 mai mhm. dans l'affaire Mame ñu daanaat euh, ñu daan ko dans l'affaire de euh, Sweet Beauté Euh, le le 23 non le 16 la woon. Mhm. le 16 mai lañ defoon jugement bi non renvoi le 23 ñu def jugement bi. le premier ñu joxe délibéré bi. Mhm. alors moom ba léegi moom Ousmane Sonko ma nga en résidence surveillée décision de justice lan moo tere ñu appliquer cette décision de justice voilà lan la ñu ciy xaar. Mhm. c'est aujourd'hui que le président dit euh, le respect des décisions de justice. Mm -hmm. il sera pas intransigeant il va pas négocier sur ça. dans ce nag est-ce que mon président de la République Macky Sall il ne sera pas candidat mais Ousmane Sonko l'opposant farouche de son régime ne sera pas aussi candidat mhm. léegi nag nit ñi déclaration bi nit ñi de mun nañ gis ni mën na am benn euh, opportunité pour le régime en place wala mën a indi benn stabilité mais bu boobaa combat bi waa PASTEF les patriotes ñoom mhm. kese ñoom ñooy weet ci seen combat pour euh, la réhabilitation de Ousmane Sonko ki xamante mm-hmm. ne moom moo di Khalifa Sall le président a parlé il a le dialogue est déjà passé. Mm-hmm. et il est content des conclusions conclusions yoo xamante décision yoo xamante ni jël nañ ko ci dialogue national bi mm-hmm. décision boobu semaine prochaine dinañ ko yóbbu en urgence fale assemblée nationale pour que ñu mën a modifier certaines dispositions de la constitution et de la loi électorale mm-hmm. loolu mooy décision yoo xamante ni lu ñu ko doon wax muy article vingt-huit pour que ñu réhabiliter kii di euh, Khalifa Sall réhabiliter Karim Wade mais loo xamante ni moom moo di Ousmane Sonko. Mhm. décision de justice bi lui il n'est pas gra il n'est pas con il est condamné mais il n'est pas incarcéré il n'est pas gracié du mën a bokk ci xamante ni moom moo di course à l'élection présidentielle mhm. euh, moom moom moom moom lañ koy comprendre noonu donc euh, on va voir Euh, dans les jours à venir ndax waa Pastef mhm. bu ñu arrêté Ousmane Sonko boo xamante ni dimb wax na ni bu ñu ko daal di arrêté bu defee trois jours sans saa euh, ñu libéré ko saa ñu libéré ko ñoo ñu daal di wàcc def manifester leur résistance mm-hmm. pour ñu obtenir loo xamante ne moom moo di saa libération waaye nag dafa mel ni Ousmane Sonko euh, xaw ma ndax dafa teel am la discours du président ndax daa fuyete woon wala. Mm-hmm. moom dafa ci amoon benn avance euh, prévention boo xamante ne amoon na ko ci. Mm-hmm. nee na même le président de la République bu demee ba ne. Mm-hmm. du ma nekk euh, du ma poser ma candidature pour une troisième fois waaye nag bu mu leen nelawloo. parce que boo leen yaakaar ne combat bi Ousmane Sonko la yéen a ngi juum waaye nag boo xoolee tey jii le président ne va plus. être candidat. Mhm. ñi xamante ni dañu doon xaar ni pour le président déposer sa candidature pour que ñu mën a manifester ñoom dañuy daal di génn ci combat bi léegi ki des mooy le parti Pastef ñoo xamante ni Ousmane Sonko leur président mu ngi en résident surveillée ki xamante ni moom moo di certains leaders sont en prison. d'autres mhm. ont perdu la vie d'autres sont. alité dans les hôpitaux ndax ñoom dinañ mën a réussir seen combat bi nag foofu véritable question boo xamante ni Sénégal ñoo koy posé à la suite du discours. Euh, voilà euh, Sagna euh, ñu discours. Euh, président de la république euh, bi mu waxee que ne euh, moom du doon candidat naam que ne ñi nga xam ne mooy ay jegeñaale bëgg nañu mu nekk candidat ci élection présidentielle yi waaye bi mu waxee ne du doon candidat mi ngi wax ci foofu ne conseil constitutionnel bi moom ci boppam moom mooy décider ci li nga xam ne rek moom mooy soram foofu noonu lan lañ fa mën a jàngatee ndax moom conseil constitutionnel dina ko bàyyi mu nekk kandidaa am moom moo ko bëggul. gis nga ma ne. Mhm. le président de la république fii nii ma position là-bas elle est claire warul mën a demander sa troisième candidature ba conseil constitutionnel di ko valider. Mhm. il est revenu il a dit qu'il ne sera pas candidat on s'en limite là maintenant commentaire ba si teg di naan même si euh, le conseil constitutionnel même si la constitution me le permet mhm. waru koo nekk. joxe na kàddoom moom moo modifier la constitution et la constitution c'est le noyau fondamental de la nation c'est la charte fondamentale de la république léegi nag nee na déposer sa candidature commentaire bu mu si teg ñu daal di teg commentaire boobu à côté il ne va pas briguer une troisième candidature waaye nag dafa lu ma fàtte si euh, au début mhm. de sa euh, de sa déclaration enfin elle a présenté ses condoléances à la nation mhm. elle a justifié son silence maanaam silence bi nekk na loo xamante ni moom président de la république à la suite euh, des personne la qui ont été tuées moom président de la république mënul génn si saa si pour def sa déclaration l'état mënul def sa déclaration parce que tristesse la parce que il manque les mots looloo tam moom président de la république malgré sa volonté pour génn présenter sa ses condoléances de la nation à ses familles éplorées mu daal di garder le silence depuis tout ce enfin aujourd'hui il l'a fait à vive voix donc euh, ñu ngi siy sant yàlla waaye nag waxaat na encore euh, loo xamante ni ginnaaw bu ñu réclamer le bilan exhaustif des des dégâts des pertes mhm. mu wax tamit ñu mu annoncé ni une assistance près des familles des victimes mhm. maanaam ñu jàppale ñoo xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo les famille des victimes famille des victimes dafa dafa c'est de façon large lu ñu ko mhm. comprendre am ñoo xamante ni blessé nañ ci ñoo xamante ni gaañu nañ ci ñoo xamante ni sauf parce que moom boo xoolee am na ñoo xamante ñu ngi en détention ba léegi décidé gu dara si seen sort mm-hmm. léegi nag noon nee na euh, l' état euh, comment s'appelle la justice se fera parce que ñu am na ñoo xamante ni si manifestation yi ba léegi moom moo ngi si stratégie euh, seen communication de force occulte mm-hmm. boo xamante nii ba léegi ñoo ngi koy dénoncé wu alors comme présenter naa ses condoléances au sein à la famille au famille des victimes ñu ñaan yàlla ñu am même esprit de dépassement boobu noonu ba euh, am loo xamante ne moom moo di encore euh, apaiser la situation ba ñoo xamante ni ñu nga en détention de façon arbitraire ñu daal dina libérer quand je parle de ça j'oublie jamais Maty Sarr Niang boo xamante ni ba léegi mu nga si seen loxo voilà ba tey euh, mu ngi ci seen euh, loxo di leen fàttali rek internet yi képp ku bëgg a participer euh, mën ngaa wootee rek daal di wax sa xalaat ci li nga xam ne rek moom mooy discours président waaye Sagna ñu gis mu mel ni comme ni nga ko waxee tout à l'heure ni Ousmane Sonko dafa mel ni xamoon na discours boobule ndaxte ñu bëri jàpp nañu ne li nga xam ne rek moom mooy déclaration président Macky Sall bi jàpp nañu ne dil la. le fait que mu daal di renoncer candidature am mu mel ni am na yeneen yoo xam ne ñu ngi koy daal di waajal. alors léegi lu ñu mën a ña euh, waajal si euh, dans cette affaire xam nga Ousmane mhm. ko tamit si prévention la ne tamit. Mhm. parce que ki xamante ni euh, daal nañ ko condamné ñu topp ko cette année il a fait combien de va-et-vient au tribunal dans des affaires yoo xamante ni plutôt beneen ak bii ñu tuddee ko affaire péjorative. Mhm. procès Prodac. Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko deuxième chose mu nekk de affaire de mœurs mhm. digganteem ak Adji Sarr léegi ba léegi moom Ousmane Sonko ses militants sont en prison il fait euh, mu def ay déclaration que ni moom actuellement y a tout un complot contre sa personne pour euh, l'écarter mhm. léegi moom lu mu doon wax ci dialogue bi nee na ñii am ñoo xamante ni du ñu leen daal di recevoir Euh, la nocturne euh, la nuit maanaam les les audiences nocturnes boo xamante ni nee na mhm. amoon na fale di euh, Mermoz defe na mhm. mooy pour légitimer tous ces tous ces tous ces va-et-vient moom maanaam c'est juste après convoquer euh, un dialogue maintenant à l'issue à la fin de cette euh, de ce dialogue mhm. ñu daal di def loo xamante ni moom moo di benn décision boo xamante ni c'est juste pour euh, maintenir certains à la course présidentielle donte loolu moo nekkoon seen yéene tamit. Mhm. parce que moom Ousmane sonkoom ay jamono bi def discours day naan man dañoo bëgg a candidat yépp ki xamante ni war nga na mën a bokk ci élection présidentielle muy Karim wadd mhm. muy xalifa Sall ñoom ñëpp ñu daal di leen réhabilité waaye naa au fil du temps gis na ni le cordon un peu coupé entre les deux. parce que muy euh, bu waxee ni Barthélemy Diaz bu waxee ni moom moo. démarche pour le dialogue mm-hmm. mooy wax Ousmane Sonko combat bi euh, xeex bi mënula la apporter dara il faut nga ñëw nga toog dialoguer ba moom Ous euh, moom Barthélémy Dias mu ne Ousmane Sonko yow pour le moment tu es jeune il faut nga bàyyi place bi kii di euh, Khalifa Sall moom mu nekk gum candidat pour mm-hmm. deux mille vingt quatre moom bu ci pare yow nga daal di ñëw pour ñu mën laa soutenir. comme mhm. maanaam moom dafa nekkoon si dynamique boobu pour ñu démarcher pour euh, jox d'abord le pouvoir a xalifa Sall. Mhm. loolu bu si génnee rek après Ousmane Sonko daal di ñëw nee na Ousmane ko dégg euh, comme moom la doon wax tuddee ni euh, doomu ndey. Mhm. alors comme doomu ndeyam déggul waxam boobu léegi nag moom entamé nañ seen négociation négociation boobu nee na Ousmane Sonko était au courant. ak xalifa euh, Sall waaye naka au finish Ousmane Sonko nee na di wuy ji si dialogue boo xamante ni ko euh, euh, finalité bi mooy écarté ko ci course élection présidentielle kon tout à fait c'est tout à fait logique moom moo teel a génn artu sénégalais ne leen lii laa ci xam discours boo xamante ne le président euh, dina ko def lii laa ci xam lii laa si ña ñaaw njortu lii laa si rafete njortu tamit mm-hmm. mu daal ko éclater démb sax waxu na ko mu ne ko nee na am na ñoo xamante ne dañ ko newoon waroo teel a wax dangaa war a wax dangaa war a xaar ba président bu waxee ba pare nga doog a wax mm-hmm. nee na moom wax moo war a jiitu parce que fallait que mu alerter sénégalais si loo xamante ni war na mën a am mm-hmm. kon dans ce cas bu fekkente ni président de la république def na discours bi mu ne dama nekk candidat te Ousmane Sonko ñëwaat nee na day def déclaration mu ne j'appelle les à la manifestation à la résistance bu boobaa nag lu ñu doon eh, lu ñu leen doon qualifié ne dinaan ñii ay nitu fitna nañ. bu hmm. boobaa moom moom nar moom la ñu nar a confirmer ci kanam. Hmm. mais aujourd'hui dafa mel ni encore il a eu la clairvoyance d'anticiper ba pare di annoncer lu bari te yoo xamante ne trouvé nañ ko seen discours le président Macky Sall. d'accord euh, mu am ay association waaye itam ay mouvement yoo xam ne euh, dañ doon xeex euh, wàllum troisième mandat lu ci mel ni jàmm gën troisième mandat F24 bi nga xam ne eh, ñoom ci boppam dañoo amoon slogan que ne euh, troisième mandat du am maanaam Macky du bokk comme niñ doon ko waxee donc mu mel ni nag euh, Macky Sall euh, daal dina dissoudre mouvement yooyu yëpp ndaxte jamono ji boo demee bay xeex troisième mandat alors que ki nga koy xeexal ñëw na ne leen man bokkatuma donc ñooñu gisatuma lan moo waral mouvement boobu di existe Sagna alors euh, mouvement boobu noonu defe naa mouvement boo koy créé day am benn objectif. Mhm. objectif bi ñoom déjà seen slogan mooy. jàmm gën troisième mandat. Mhm. léegi nag jàmm gën troisième mandat comme ñoom dañoo daal taxaw pour xeex loo xamante moom moo di troisième candidature du président de la république loolu mouvement boobu boobu noonu féete na bor. bu fekkee dañoo bëgg a exister à condition ñu changé waat seen tur bi ñu changé waat seen objectif mais jàmm gën troisième mandat finalement troisième candidature amatul xanaa ñu def ko mouvement de veille mm-hmm. di xaar ndax entre temps président ba mën a def forte face de façon prudente pour que ñu mën a nekk en mouvement d' mais pour le moment jàmm a gën troisième mandat ñoom seen mouvement boobu ne daal dina féete bor définitivement pour le moment pour le moment jusqu'au mois de septembre defe naa le dépôt des listes war na commencer mois d'août xawma mois de septembre bu fekkente ne boobu jot na président de la république annoncé wu candidature am déposé wu loo xamante ne moom mooy sa bu baax ñëw seen mouvement di den daal di euh, nasa euh, comment ni koy waxee. <laughs> Ah, voilà dina daal di. maanaam pour mu féetee waaye nag am na beneen mouvement boo xamante ne ba léegi moo nga des. Mhm. ba léegi mouvement boobu moo nga bokk si jàmm gën troisième mhm. mooy ñoo xamante ni moom moo di euh, suñu milliard du rees. xam nga mhm. suñu milliard du rees boobu tamit mu ngi nekk mouvement boo xamante ni non seulement. mën nga réclamer mën nga xeex contre troisième candidature. Mm-hmm. mais mën nga xeex loo xamante ni moom moo di euh, pour euh, le comment ça s'appelle ñu rendre compte sur la décision des fonds Covid 19. Mm-hmm. ba léegi loolu tamit. justice tant que moom tamit amuñu si xawma lan mooy seen objectif finalement parce que kero dégg naa gis naa nga introsé kii di Yolande. Mm-hmm. nee na euh, ak nu mu mënta demee ñoom dinañ daal di taxaw. pour défendre loo xamante ne moom moo di dossier boobu noonu. Mm. dinañ si daal taxaw pour que justice mën a rendre compte par rapport à la gestion des fonds Covid-19 des personnes impliquées dans euh, cette malversation financière. Mm-hmm. kon léegi sax am na mouvement déjà suñu milliard de reste moom pour le moment ils peuvent rester dans la course. Mm-hmm. mais jàmm kon troisième mandat boobu dañuy jël seen mi temps pour le moment. ah même f alors F24 seen objectif de combat boo xoolee dañ souvent dañuy réclamer loo xamante ni moom non au troisième candidature la libération des euh, des politique politiques dañ koy daal di dégg seen euh, seen i manifestation mm-hmm. di wax tamit à euh, lever la barrière policière au niveau chez Ousmane Sonko mm-hmm. alors léegi loolu tamit seen euh, combat bi seen euh, revendication yi déjà am na benn partie boo xamante ni réglé wu na. Mm-hmm. léegi ñu daal di xaar ndax dañuy daal di euh, tegaat beneen revendication sur la table kii di des na sax Africa Jom Center. Mm-hmm. bu Alioune Tine moom tamit mm-hmm. daan na alerte ci non au troisième candidature. waaye nag di rek daan na demande aussi pour ñu libérer ñi nga xamante ni ñoom ñooy c'est des détenus politiques. pour maintenir la stabilité du. du pays voilà euh, mu mel ni euh, tey jii le fait que euh, président Macky Sall daal di annoncé que ne du doon candidat waaye itam annoncé wul kan mooy doon candidat wu Benno Bokk Yaakaar kan nga jàpp ne moom mooy doon candidat bi. alors depuis le mois de septembre defe naa la ñu commencé di euh, am ay suspicions sur certains noms mhm. mais le nom le plus en vogue à l'époque c'était Abdoulaye Daouda Diallo mm -hmm. alors Abdoulaye Daouda Diallo annonce nañu ko euh, loolu tax na parce que biir Benno Bokk Yaakaar lenn kese moo nekk problème principal mhm. problème principal bi mooy kenn nangu nekk sa morom Euh, kenn nangul nekk. Euh, ginnaaw sa morom sa loolu mooy seen problème fondamental bu ñu annoncé Abdoulaye Daouda Diallo. Mhm. ñi naan après entre temps ñu ne Abdoulaye Diallo Daouda Amadou Ba ne va pas accepter de se ranger derrière Abdoulaye Daouda Diallo. Mhm. alors ginnaaw euh, ADD ginnaaw ADD yaa aussi annoncé nañ tamit. Abdoul Abdoulaye Diouf Sarr. Abdoulaye Diouf Sarr annoncé saar Abdoulaye Diouf Sarr alors Abdoulaye Daouda Diallo tamit du nangu nekk si ginnaaw Abdoulaye Diouf saar mm-hmm. léegi à côté de ñëw annoncé Amadou Ba. Amadou Ba boo xamante ni ñu ne ñaar ñii di Abdoulaye Daouda Diallo di Abdou eh, Abdou Abdoulaye Diouf Sarr. Mm-hmm. du ñu nangu nekk si ginnaaw. Amadou Ba donc il y a mm-hmm. tout un ensemble de problème au sein du euh, du parti de la coalition benn Bokk Yaakaar. pour am loo ki nga xamante ni moom moo di benn personnalité boo xamante ni mën na euh, mën na apporter euh, le euh, la vision mën na apporter pour continuer la vision du président de la République Macky Sall. Mhm. maintenant loolu tax na ba nit ñeneen yaakaar ni donc est-ce que il tend vers une le retrouvaille des libéraux. Mhm. maanaam bu fekkee ne ñeent ñeenti yëpp. amul benn consensus autour de ces personnes là donc est-ce que euh, Idrissa Seck mënul nekk le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar loolu tax na ba ñeneen ñi ne jàpp la la sortie de Idrissa Seck comme une stratégie pour ñëwaat ci euh, askan wi constituer waat li muy constituer waat mooy euh, amaati encore benn élan de possibilité pour récupérer mm-hmm. certains militaires xamante ni wane nañ ginnaaw le partie Idrissa Seck ginnaaw ba mu déclaré le Mbour ak la Mbour ak soo boo xamante ni ba léegi loolu coûté na ko cher mhm. ba mu daal di perte les les dernières élections au niveau de la région de Thiès mhm. deuxième deuxième stratégie moom moo di bu fekkente ne Idrissa Seck mënul dem ñu mhm. daal di jël ki xamante ni moom moo di Karim Wade Karim Wade moo nekk seen beneen suukar boo xamante ni bu boobaa day daal di encouragé xamante ni moom moo di le retour le retrouvaille de la famille libérale parce que boo xoolee ñi xamante ni ñoom ñoo doon pousse le président de la république vers sa troisième candidature ñu ko doon ba ñu doon battre campagne. Mhm. les plus en vogue sont nga xamante ni c' est les anciens du parti PDS. c' les Mamadou Mansali c' euh, les les les euh, Amadou Sall. Amadou Sall maître Amadou mhm. Sall bu nekkoon avocat. Euh, Nja Njaga Njaga. Njaga Diouf wala Njaga Diouf. Mm-hmm. ak kii di les Serigne Bakke Ndiaye les Abdoulaye Mactar Diallo euh, Abdoulaye Mactar Abdoulaye Mactar Diop ainsi mm-hmm. de suite ñoom ñoo nekk di. encourager le président vers une troisième candidature c'est cette famille libérale là mm -hmm. certainement que les gens pensent que au-delà de ces trois personnes peut-être mën nañu choisir entre Idrissa Seck et Karim Wade pour ñu am benn retour à la aux familles libérales pour ñu mën a continuer di diriger parce que le le souhait du président de Wade c'était que maintenir les les libéraux au pouvoir pendant à peu près cinquante ans. cinquante ans mm. mhm. euh, d'accord euh, mu mel ni euh, discours président Macky Sall daal dina mën nañu ne wax ci ponk yu bëri yaakaaroon ne am na ponk boo xam ne waroon na ko wax te waxu ko. non par rapport à ce discours aujourd'hui c'est un discours mémorable parce que mhm. c'est un excellent discours euh, qui euh, qui maintient le souffle euh, des Sénégalais bu mu ko annoncé pratiquement euh, tout le monde a soufflé ñëpp nañ wax nañu alhamdulilah rabbil alamin waxoon na ni li li xamante ni moom moo concerné son bilan après la ko mën a waxee. du mhm. la ko mën wax tey jii lu mu wax ni mooy. ces manifestations yoo xamante ni am na ba ay sénégalais ñàkk seen bak seen bakkan mhm. ba am ñoo xamante ni moom moo di moom ba moom mu resté depuis tout tout ce temps mënul mënul génn mu justifier son silence comme étant euh, un silence boo xamante ni c'est un silence de tristesse un silence la cette tristesse là qu'il a laissé sans loolu tax na moom mënul génn mhm. pour def déclaration boo xamante ni mën na indi benn euh, mën a wax loo xamante ni suba ni ngi gisee ko leneen mhm. loolu tax na moom mu garder le silence depuis loolu donte silence boobu noonu les gens comme moi mënuñu ko koo pardonner parce que seize personnes mënuñoo ñàkk seen bakkan ñoom les les ministres là qui sont autour de lui continuer dinaa so des force occultes c'est mhm. les Sénégalais yi ñoo xamante ni ñoom ñoo génne manifester ko si des yaa perte ñuy wax ay milices ñuy wax ay nervis ainsi de suite ainsi de suite mhm. kon tey bu génnee mu justifier son silence ba pare nag te ñaawlu ces actes la yoo xamante ni am na euh, ci ci Sénégal nee na actes yax la yoo xamante ni kenn mënu ko justifier kenn mënu ko comprendre parce que c'est la stabilité du pays Euh, euh, doit aller au-delà des intérêts politiques et des intérêts personnels mhm. kon tey jii bu taxawee encore annoncer toujours comme loolu mooy le principal euh, la principale information le président ne sera pas candidat en 2024 mhm. kon tey jii nii mën na jàpp ni euh, nañu pour les autres points yoo xamante ni annoncé wu ko mën nañu xaar ni le jour où il fera sa déclaration de bilan pour ñu daal di xam ne lii liggéey na fii et eh, liggéeyul fii eh, fii des na fii des na ainsi de suite ainsi de donc mm-hmm. euh, tey jii quand même on peut dire au président je pense que depuis 2012 mm-hmm. c'est l'un de ses meilleurs discours depuis euh, sa au niveau de la magistrature suprême de mm-hmm. la République du Sénégal voilà mu mel ni nag euh, comme mbir mi dafa xaw a guddi te xam naa ne ñi waroon a woote ngir participer ñu bëri ñu ngi fekke à leurs occupations